هو الجوهر المكنون والسبب الذي فلولاه ما كان الوجود بخلقتي وأرواح كل mën naa wax ni sax doyoon na ndax dootuñu wax lu ëpp li fi ñu jiitu wax wax li ñu wax sama bàyyi daf daan wax ni liqa euh, naan liqaaul ixwaan liqaax ay gor yu daje soppante bëggante nee na tiim ndabal teraanga di ko jañante di ko jañante ba mu toj moo gën di ko xëcc ba mu toj jataay bi yàgg na coono yi metti na dépassé nañu heure bi ñu waroon a libéré nit ñi te am na ci ñoo xam ni wéruñu te ñu ngi ci saal bi am na ci ñoo xam ni programme yu bari ñu ngi ci seen kaw kon li ñuy def rek mooy di woo Sénégal yépp ci bés boo xam ni seen bés la man duma wax maa ngi woo jullit ñi Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour Sénégal yépp a ko bokkoon Cheikh Omar wax na ko benn gouverneur la woon bu nekkoon ca Casamance mi ngi dégg li may wax xam na ko bi sëriñ bi defee jibóob ci jumaa ja benn waay moo ko jëkk wax ni ko sëriñ bi yow gan nga fi mu ni ko gan laa ci dëkk bi waaye du gan ci diine ji te diine bi diine ji ma yëkkati mu ni kamaj ni ko wax ma loo bëgg ma def mu ne ko ngeen ànd bu fekkee yàlla rek a tax ngeen def jumaa ji mu ne ko yàlla rekk a tax ñu def ko fi mu ne ko kon ñëw leen gouverneur bi doon présider jotaay boobu yàlla def mu fekkee jamono yooyu mu nekk gouverneur euh, Ziguinchor Casamance booba jamono catholique la woon sëriñ bi kontaan ni ko yow mi fekkee yëf yi sax dama la yóbbu mag ci teggi na mu bàyyi ba ñu dugg mu ni sëriñ bi man kat catholique laa mu ne ko lu ci sama yoon xanaa doo dem Rome mu ne ko ah kay mu ne ko bii Rome ngi dal di génn xaalis jox digganteem ak euh, ñi mu dëkkaloon. ba ci tey suñu cardinal bi fi nekk di Adrien Sarr di ku baax daan fekkante sëriñ bi bés guddi ak bëccëg fekk na ko fu nekk sëriñ bi woolu na ko fu nekk ñu ànd waxtaan def lu nekk ba ci ministère de l'intérieur ci kër gu nekk foofu bu maam Cheikh Ndiaye fa la mujjee gisante ak sëriñ Mansour kon sëriñ bi tey daf daan wax ni ca Tiwaawan booba sax nekkagul xalifa mu daan woolu waa kër Cheikh Marou Ba waa kër Cheikh Aw Balla booba ñoom ñoo fa nekkaloon sama waa kër maam borom Touba mu daan leen woo ba ñu ñëw mu ni leen ku fi jóg am soxla teggi ma fi dem tuubaa di ko fa waxi la ngay dox yàlla bu mu sotti parce que tey ña fa nekk man maay seen doom man maa leen nekkal fii sama maam Saalix Mbàkke daf daan yónnee sëriñ bi xar daan ko jox Baye Saliou Touré ca Thiès ni ko demal ci sëriñ Mansour nga joxal ma ko sama doom sama xarit sama soppe mais boo demee nee ko doom ñett la doom ji tiital baayam doom ji tiitaroo baayam ak doom ji baayam di tiitaroo nee ko moom tiitarul baayam tiitaroo ñun ñoo koy tiitaroo te booba Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour nekkagul xalif mu am ak ñoom am ak mbokk tey famille tey Serigne Mansour bu leen fàtte ni côté yaayam lébu la daf daan wax ni lu ñuy xëccoo ci Ndakaar walla ci lebu yi ndax moom Demba Seck caanee ko jur ca mbaaw maamam moo sañ ci mbaaw jërëg ma ca xàndal loolu ku ne xam na ko kon sëñ Mansour loxoom ci biir Dakar kon moom du tey sëriñu tariqa walla sëriñu diine walla moom sëriñu senegal yépp la ku mas bëtam mas xonq sëriñ bi defa na ni dafa daan wax ni immeuble yi may tabax lu muy rëy rëy benn néeg laa ci mën a fanaan kon def ko fi pour son bopp dama ko def pour jaamu yàlla yi ñun ñii nga xam ne ay njabootam lañu muy man muy Mame Malick woon na ñëpp sëriñ bi ay gan ak ay jàmbur ñoo daan dëkk ci ay këru tabax ñun bërki dem lañu commencé tabax ñun ci ay néegu ñax lay doon faraat ci Tiwaawan <laughs> ba tey jii suñu néegu ñax yaa nga fa kon sëriñ bi socialement loolu moom kii kon ñi ngi woo Sénégal yëpp di leen wax ni seen bés la di ci jiital ci woote bi le président de la République son excellence monsieur Macky Sall ci taxawaayam ci rafetalam ci nekk doomu Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour parce que Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour daf koy faral di wax ni ko yow sama goro la ndax soxnaam di Marième Faye kon ñu ngi koy woo di woo soxnaam di ko wax ni seen bés la ndax ñoom nañ ko jaglelee moom ak le roi Mohammed VI euh, di ci woo jullit yépp di ci woo këru diine yëpp di ci woo Sénégal yépp di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla yóbbu ci bés bi ak jàmm yàlla may nu lépp luñ ci def mu nekk loo xam ni yàlla rek lañ cey gis yàlla bu mu nekk àdduna yàlla na ci Sénégal jaare itam tag-tag yi ak xat-xat yi ak métti métti yi ci bés boobu yàlla jaarale ci lépp baax jaar yoon Sénégal nekk ci jàmm ñi ngi sant particulièrement suñu rakk suñu xarit suñu soppe boo xam ni lii yëpp ci taxawaayam la di maam Oumar Ndiaye bi nga xam ni yaayam mooy caatu Serigne Babacar Sy tabaarakallaahu mooy coordonné mooy bind mooy def amul benn dërëm bu ñu ko jox lépp participation la mu ànd ak suñu jarbaat di suñu doom di suñu lépp di Daouda Diop bi nga xam ni tabaarakallahu di suñu doomu mag ji di suñu xarit di alxaaji Yuusu Diop di sant commission bi yëpp sànq tudd nañu ba tudd bëgg tudd sax ñoom Ahmadi Sall mi alxaaji Soumaré tabaarakallahu euh, dafa mel ne bés bi ñépp a ko yàkkamti woon comme ni ko alxaaji fay waxee dañoo seet seet ban bés lañu ñu war a mën a defal sëriñ bi ci fan lañ ko mën a dugal ci la ñu dem tombe d'accord ci ndigalal sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si Mansour ak woy-juram sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum keroog dama jékki-jékki rek sama papa Malick si woo ma fekk maa ko woo jotuma ko bi mu agsee mu woo ma ndeysaan tooñ ma ci xam nga ko leebaay bi yëf li ma wax góor gi kontaan na sa papa kontaan na ca ëllëg sa maam Maodo bu sa mbaar Cheikh woo ma tabaarakallaahu wax ma même chose suñu mag suñu xarit Mouhamadul Moustapha kër gi ñoom alxaaji Mansour démb rek euh, maa ngi waxtaan ak sama pap Maodo ture bu sa mam Hadi Touré bi ma ñëwee daf maa wóolu ba ma ñëw mu ni ma dama bëgg ngeen tudde bés bi adkuru mahasina mawtakum maa ngi ci waxtaan ak ñoom ma Malick mu ni ma xam nga adkuru mahasina mawtakum mooy wax li ngeen xam ci yu baax ci seen way dem ndax génération yi ñëw mën cee jaar mu ni ma yamul ci nga tëral néew bi kese ñu wax waxu yu rafetam bu ngeen pare ngeen dem kon euh, maa ngi rafetlu jataay bi sunu xarit sunu mbokk sunu mag nga xam ni ci kër gi la bokk ci sunuy commission la bokk ci sunuy programme la bokk di doomu Serigne Mansour di commissaire Ablaye Diop ca commencement ba ba tey ñoo moom ñoo bokk mbir mi seq ko mi ngi nii di ak si tabaarakallahu kon ñu ngi rafetlu jataayam di wax dëgg yàlla di dellu siwaat ca la ma waxoon sànq rek ca commencement ba mooy remercier la presse di leen ñaanal yàlla yal na yàlla taxawu yal yàlla jàppale leen parce que comme ni ma ko waxee woon sànq rek amuñu seen pay bu ci kenn ñëwoon rek daanaka mel na ni ñëpp ñëw nañu kon su ngeen defee nii te li ñu ci bëgg yéene ko ci ñu yaakaare ko ci seen voix ngeen bëgguñu ñu ko jàllaleel dañuy ñaan yàlla yal na yàlla leen taxawu leen ñi ngi sant grand sëriñ ci taxawaay bi ak accompagnement bi xam ni ñoo bokk bàyyi ndax moom mii waaw waaw dëgg la piskay dëgg la dëgg la dëgg la ah loolu nag moom tabaarakallaahu seede bu rafet la ñoom Xasan si ñoom Ahmed si tabaarakallaahu ñoom ñëpp di suñuy doomu bàyyi ñi ngi fii xaj Mansour Mbaye tabaarakallaahu bu ñu limee dañuy am ñu ñu bàyyi comme ni ñu koy waxee euh, waaw euh, maa ngi gërëm di sant ak di woo itam mm-hmm. yi fédération yi daayira yi moo xam muy ci kër gi ak fu nekkul ci kër gi mboolem confrères yi boo mën a bokk ak foo mën a ne ñi ngi lay woo ci bésu Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour bii nga xam ni daf ko tànnaloon baayam ak maamam ci loolu lañu waxee ni euh, ci loolu la ñu waxoon ni rang boo xam ni fekk nga fa Seydi xaaj Malick taxaw fa sëñ Babacar taxaw fa rang boobu boo fa fekkee sëñ Mansour doo ko puus kon ñu ni lañ jël Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour dugal ko ci foofu nga xam ni moom moomoon bés bi bésam la kenn wutiwul benn bés moom moo defoon bés boobu mu njukkalu baayam ak maamam ñu nit am nañu droit def njukkalam ndax nit ku nekk ak sa sëriñ ñële ñooy sëriñam mais moom mooy suñu sëriñ ñu boole sëriñ yooyu yëpp def ko muy benn di sant nag jigéenu dawaa ir yëpp tabaarakallahu xam naa ni li mu daan wax naan ñoo mën góor ñi fu ñu toll rek ñoo mas a mën góor ñi ndax ñoom ñooy cric kon mbir mi ñoom laay wax ni seen bés la seen yëf la góor ñi dañ leen ciy jàppale di leen wàll si mais yéen yéen ko moom mm-hmm. euh, tabaarakallahu di ci woo itam suñu fondation Mame Fawade ak mboolem organisation yoo xam ne yaa ngi ci biir alxaaji Dame Ndiaye bi nga xam ni tey suñu lépp la di suñu euh, tabaarakallahu suñu mbokk moom itam mi ngi fi euh, dafa agsi ci ginnaaw gi ñu ngi koy sant bu baax léegi ah <laughs> di sant très bien tabaarakallaahu di sant ñëpp di sant itam nag famille Seydil Hadji Malick yëpp bés bi ku ko yëgagul ci ñoom fekk sa portable moo tëju wala nga tukki wala nga nekk fu sore mais defe naa ni quatre vingt pour cent yëpp mën naa wax ni yëg nañ ko ndax ñoo moom bés bi ñoo moom Serigne Mansour ñoo moom seen lépp tabaarakallaahu ah di ñaan rek yal na yàlla yóbbu ak jàmm ci bés bi. Mm, di nuyu soxna Awa Kane nit ñi ñëw ci jàmm dellu ci jàmm. di nuyu soxna Awa waaw xam naa Cheikh Omar moom moo gars yi dañ ma bëgg xaxar di ma sànni ay xeer waaw ñi ngi koy ñi leen di sant bu baax. di nuyu soxna Awa Kane. waaw <laughs> dama di nuyu tabaarakallah tabaarakallah. <laughs> maa ngi comme ni ko Cheikh waxee rek sànq ni diaspora bi ak yëpp ñoom itam ñu ngi leen di bàyyiloo xel bés bi comme ni nga xamee ni waa France ñoo ngi koy préparé comme ni mu ko limee fañ koy defee ku mel ne sunu mag sunu soppe suma xarit alxaaji Pap Njaay tabaarakallahu ak kilifa yu baax yépp ñu ngi ànd ak ñoom ak fu njaboot nekk rek ci bitim réew defe naa daal kàddu yi noonu la noonu lay toll ci gàttal pour bañ a gën a téye nit ñi daal soxna Wuraye jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm yooyu itam di jaarale cant gi yëpp ci sa voix ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax asalaamaaleykum. Donnez la parole à la presse par rapport aux questions. Donc pour les questions, waa xaaral ñu commencé par Modou Abba. Qui d'autre voudrait poser une question? Oui, d'accord. Il y a quelqu'un on a deux questions. awuzu billaahi mina sheytaani rajiim maa ngi ziar ñun sëriñ yi nekk suñu kanam. ñu ngi ñu waroon. en 2003 2004 dama réalisé woon benn film documentaire RTS tudde ko Sëriñ Babacar Sy un xalif une époque un viatique. alors si biir film bi ma dem tubaab Jalaaw waxtaan ak rahmatulah alayhi góor gi Abdou Karim Ndiaye. mu may nekk lii ne ma. dafa ànd ak Serigne Babacar Sy guddi altine ñëw di ziar ca seen hajman mais ne bi ñëwee entre deux heures trois heures du matin Serigne Babacar ne ko ah doom dinañu feeñ mais nag keroog alaaji Njóogu Ñaŋ moo leen fa fekk mhm. ñu ñaanal ko Serigne Babacar Sy ñaanal ko mu dem mu ne ko doom dinañu feeñaat mais ne bi ñuy dox di dem ba tollu wëtëgal keer sëriñ ma wala wala borom daara ji mooy ñëw mu ne sëriñ Mansour si ne kër. mu ne ko kii mooy borom daara ji. Mhm. léegi dama bëgg ñu leeral ñun ñi ne turu borom daara ji c'est pas maintenant ci gàmm yii muy firi yooyu. Mhm. c'est antérieur à ça. Mhm. donc yàgg na. que nit ñi bañ a ne turu borom daara ji c'est récent. non non c'est pas récent. sëriñ si boo ko tuddee borom daara ji. question jërëjëf jërëjëf mooy li nga xam ni moom la Doudou Fall ci Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour ci wàllu borom daara ji Serigne Mansour bàyyam moo ko ko tuddee comme ni mu ko ko waxe loolu lu am la li tax mu tuddee ko ko ci ñaar la tënku mooy lu ñu gis ak lu ñu gisul li ñu gisul xaqiqa la loolu moom moo ko xam mais li ñu gis moo nekkoon comme ni ko alaaj Pap Fay waxe woon sànq sëriñ bi dafa nekkoon ca daara ja séddoo woon jàng ak jàngale bi mu commencé di jàng ci baayam la commencé jàngale di jàngale comme ni ko alaaj Pap Fay waxe sëriñ bi daan na toog de 9 ba vingt trois heures ci guddi muy jàngale boole ndékki añ ak reer trente cinq ans yoo xam ni booba micro amul moo indi woon muy wax ca kaw pour nit ñi dégg ko ba fi nga mën a nekk daf daan jàngale ci kër Serigne Babacar booba Cheikh Hadji Mansour turandoom may na ko doomam muy soxna Fat si Mansour bu fa jógee dem jàngale ji ci kër Cheikh El Hadji Mansour daf daan jàngale ci téere yu ndaw yi ba ci téere yu mag yi cest à ci suuf ba ci fu mag loolu ci feeñal moo taxoon mu gi sëriñ Babacar bàyyi ko daara ji ku fa ñëw di jàng si mu nu yóbbul ci sëñ Mansour ku fa ñëw di jàng si mu nu yóbbul ci sëñ Mansour beneen bi nga xam ni ñoom waa ji daat am na benn bés ñu am délé eh, délégation bu mag ak ñoom Thierno Boubacar si yu ñu doon laaj si sëñ Babacar ci wàllu xam-xam ba ñu ñëwee di ko laaj sëriñ Babacar dafa téye seen loxo ànd ak ñoom ni leen nañ leen dem ca borom daara ji mu tontu leen ci seen question yi loolu moo indi borom daara ji. lii sëriñ bi di laaj ci programme bi message bi nga xam ne ñun moo ñu yëkkati fi mu toll nii mooy lii maam malik mi waxoon keroog ca réunion ba mooy Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour dafa fexe ba roy mag ñi te mooy jaajju ba da Sidi Hadj Malick waxoon jàng jaamu yàlla bay message boobu lu ñu bëgg message boobu nag yamul ci rek le 30 parce que dañuy jëm vers euh, def benn programme fondation boo xam ni buñ ci jógee incha allahu fondation borom daara ji la ñuy taxawal borom daara ji ku ne xam na ni tey soo demee waxuma rek ci social këram yi mais boo demoon Tivaouane tey ma ngi fa entamé woon benn institut islamique bu mag a mag ci benn terrain moom moo koy moomal boppam. boo xam ni jóg na ñu ngi ko war a àggale boo demee almadi mi ngi fa def benn jumaa joo xam ni tey am na ay mbokk yuy ñëw ci nun di ñu ñaan pour àggale ko mais dañoo toog ñun nii ëpp naa def sëriñ bi def jomam ak ngóoraam ba mu toll fii ba nga xam ni jumaa ji jeex na lan moo ci des presque ay finition boo demee sax di nga fa fekk bi tey fa mu ko def amul benn jumaa bu nekk foofu ci almadi xoolal terrain Almadies ni mu chéré ni mu chéré mètre carré mu jël àll boobu yëpp ñu jox ko ko ak ni xaalis neexe ak ni ni ni ni ni ni fina mu ñëw jël lépp daal di koy def jumaa ba pare yëkkati ca kaw ni institut islamique donc yooyu ay œuvre la yoo xam ni incha allah réalisation yoo xam ni ñun aussi ak ay tool soo demee manko 700 hectares nga fa yoo xam ni bokk la yeneen loolu am na ko presque quarante ans mi ngi ak moom soo demee mbooro Mboro cent hectares ma nga fa yoo xam ni def na léegi presque 45 ans ndax yenn yi mi ngi ko amoon depuis 58 fu mu toll mi ngi ko daan wax naan bi ma lay wàdd nangam nangam ak yu mel noonu. donc boo demee ci yeneen dëkk boo demee jàmm gën sëriñ bi fii daf bay lii fii daf fi yooyu yëpp nag la ñuy boole liggéey ko muy message boo xam ni. loolu la ñu soxla parce que pour nit ñi dellu ci xam-xam parce que ku xamul bàyyi ma ngay doon invité ñëpp ñu dellu ci jàngi invité ñëpp encouragé leen pour ñu mën a daw liggéey yi parce que ku liggéeyul doo doo jariñu doo dem parce que di tappalaatu di dunde baaxul sa maam Seydi Hajj Maalik dafa waxoon ni wa aaqilun yakunu fi shay'ayni yas'a fala thalitha duna may ni xasanatan takunu lil maadi wa dirhamun min al maashi baadi mu ni ko xellu ci ñaar rek ngay tënku mooy ñaq pour dimbali ko ak jaamu yàlla pour ëllëg kon nit ñi il faut ñu invité parce que sëriñ bi foo dem am na fa tool maamu Seydi Hadj Malick ci loolu la doon dund Seydi Hadj Malick fu mu fu nekk gor na fa boo demee Njaarnde boo demee Jaksaaw boo demee Jàmmagën boo demee fu nekk kon dañuy invité nit ñi pour ñu dellu liggéey liggéey bi nag doo jël rek daal ni fii laa koy wut parce que yàlla wàcc na junni métier ci maam Adama kon li ci des mooy itte ak yaakaar te bañ a yàkkamte parce que léegi génération bi ñu toll il faut ñu xam ni mënuloo togg léegi bëgg a togg lu neex nga daal di gaawantu teg sa cin baxagul nga sóor baxagul nga def sa ay kii ñorogul nga ba daal di bëgg a yàq lekk mën nga lekk mais doo lekk lu ñor. loolu moo tax ñu bëgg nit ñi am patience te daw wuti liggéey sonn pour mën a taxaw pour réew mi mën a jëm kanam parce que l'islam li mu gën a bañ mooy tàllal di ñaan terewul nag ndimbal ba tey mi ngi fi képp koo xam ni parce que loolu yàllaa ko jëkke ndax gis nañu Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu moom ak Fatima ku ne xam na ni Ali mooy rakku Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Fatima mooy doomu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu boole leen ñu sëy dem nañu ba nga xam ni amuñu lu ñu dunde ci seen kër toog nañu ay fan dépense amul ci seen kër nan la Fatima def dafa ne Seydina li jëlal sama ñaari sér yi nga dem jaay ko ca marché ba loo ci am ñu dunde ko mu jël ñaari sér yi dem ca marché ba di ko fa jaay ñu fay ko ci benn bu ne ñetti dërëm muy juróom benni dërëm mu jël ñett juróom-benni dërëm yi dem bay bëgg a dugal ci gafakam juróom-benni miskin kar ko ni ko dañoo toog ñetti fan lekkuñu gisuñu Muhammad yaay rakkam sarax ñu ngir yàlla mu xool muy juróom-benni nit te li mu yor di juróom-benn mu ni waa ñii bu ñu doon juróom sax ma jox leen juróom yi téye benn bi mais xelam dem ci ni ñii dañ ko ni gisuñu rasulullah te yow yaay yonent bi mu ni kon am yàlla yàllay buur ñàkk yàlla yàllay buur daal di jël juróom yi séddale leen ko ñoom toog dese yàlla wëlbati ko nag di ñibbi jaaxle xamul nan lay wax Fatima parce que li Fatima dese woon yëpp jox na ko mu dem ba ci yoon benn waay dab ko yor benn gëléem daal di koy arrêté ni ko sëñ bi marché dafa wàcc mu ne ko mu ne ko doo jënd gëléem man dama doon jaay gëléem bi te marché lal li ma ma sama gëléem lamb mu ne ko man di bëgg naa gëléem bi rafet na waaye aw ma njël mu ne ko bàyyil ma lebal la ko mu ne ko xamoo ma ba di ma lebal mu ne ko ah kay yow yaay euh, Ali ibn Abi xam naa xam naa bu ma la lebalee di fay mu ne ko ñaata nga ma koy lebale mu ni ko juróom benn fukk mu ni ko indi mu daal di jël gëléem gi ni ndax yàlla su ma demee wan ko Fatima bu ëllëgee ma ñëw teg ko ci marché bi di daw ba ci yoon bi am benn waay bu daw ñëw nuyu ko ni ko sawaay baal ma de dama doon dem marché dégg ni lalli nañu wàcc nañu sa gëléem gi jaayoo ko mu ni ko léegi lañ ma ko lebal mu ne ko dimbale ma de gëléem moo ma yëkkati woon jaay ma ko loo ma ko jaay ma jënd ko mu ne ko léegi lañ ma ko lebale ci juróom benn fukk mu ko teg naa ci juróom benn fukk daal di ni xobbet xobbet fay ko téeméer ak ñaar fukk dem yoonam ka ko lebaloon gëléem gi dajeeg moom ni ko yow ana gëléem gi ma la joxoon mu ni ko jaay naa mu ni ko baat naa ko ñu mu ni ko déedéet loo ko jaay mu ni ko juróom-benn ñaar fukk mu ni ko kon delloo ma sama juróom-benn fukk mu yëkkati juróom-benn fukkam delloo ko bi mu ko delloo juróom-benn fukkam affaire bi nag jaase ci boppam mu daal di téye juróom-benn fukk ñaata la joxe woon. juróom-benn ñaata la dikke juróom fukk mu daal di daw nag ni Fatima. bala ñuy toog nañ dem seeti sa papa muy rasulullah ñu ànd ak moom dem seeti yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka la ñu ni cëp ci kanamu yonent bi rek yonent bi reetaan ni leen Seydina Jibril ñëw na fi léegi xam naa li ngeen may indil mooy gëléem ga ni leen kii xam nga kan moo la lebal gëléem gi mu ni ko dee mu ni ko Seydina Jibril xam nga gëléem ga fu mu jógee mu ni ko mu ni ko aljanna Azrafil moo moo moo moo ko jënd Mikaayil moo fayeeku bor ba ni yàlla wàcc na léegi man jaa bil xasana fa lahu am amthaliha wa man jaa bi sayyi'a fala yujza illa mithlaha c'est-à-dire nit ku ci nekk loolu moom fi lañ ko fekk bi ci topp mooy il faut que nit ñi delluwaat ci xam-xam jàng gëstu su ko defee parce que daan nañu wax ni nit boo jàngee rek daal di kii loolu nag sëriñ bi ci loolu la ñuy def mais le 8 décembre dañ koo daw ba moo tax defuñu ko parce que bés bi le 8 décembre la gënoon a jekk mais sëriñ bi masul bëgg anniversaire ndax masul bëgg baayam baayam masu ko bëgg ay léegi rek la xew da ngay dem ba am ay njaboot yoo xam ni dañu lay pousser ci dara pousser la ci pousser ba dootoo ci mën dara mais amul benn kër ci biir kër gi koo xam ni mag ñi fi jiitu masoon nañu bëgg lu jëm ci wàllu anniversaire loolu moo tax ñu ni nañ ko génne carrément ci anniversaire comme nag mënul ñàkk ñu defal ko hommage mënul ñàkk ñu génne ay def defam mënul ñàkk ñu fàttali nit ñi kan mooy sëriñ Mansour pour mën a dellowaat nit ñi ci wàllu xam-xam ci wàllu liggéey ci wàllu jaamu yàlla nañ ko def ci biir bésu daara ji loolu mooy bëgg-bëgg bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp defal waaw kon ñu def fatiha salaatul fatiha yàlla jéggal ñu sunuy bàkkaar nu ngi ñaan réew mi yal na fi yàlla def jàmm dolli ko yal na yàlla yokk teraanga ci réew mi yal na bokk ci réew yi gën a kawe ci réew yi ci wàll yépp nag ci wàllu développement sunu kilifa yi yaakaar yi ñu am yal na ko yàlla mottali yal na yàlla jàppale leen ci sama papa dafa daan wax nii soo nekkee ci biir gaal boo amee sa ëmb ci gaal bul ñaan ëmb bi mucc da ngay ñaan gaal gi mucc su gaal gi muccee sa ëmb muccaale kon yàlla na gaal gi mucc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di masawu ñépp di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla yóbbu ñu fekkee ko ak jàmm te di waxaat ñi ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw ñu def fatiha ak salaat fatiha فلولاه ما كان الوجود بخلقتي وأرواح كل المرتدين به هدت من السخي أنوارا لكشف الجنة من الأنبياء والمرسلين وغيرهم من المؤمنين الروح أصل نشهتي برم دارجي وين ينن من الأنبياء والمرسلين وغيرهم من المؤمنين الروح أصل نشهتي فمن لم ينل من سقي بات ملقدا وآت سقيا كافرا كل دعوتي borom daara ji way na yonen fa haza rasulillahi wa sanadu laze safaatu wootur jaadan yowma rabbati borom daara ji way na yonen fa haza rasul